dal leen ak jàmm ñu indil leen ay leeral ci publication gi yéenekaay gi di L'As Quotidien defoon ci groupe Futur Média maanaam GFM lan ngeen ci xamul woon ndaka la mbir mi demee dëgg-dëgg démb ci altine gi yéenekaay bi di L'As dafa bind ni Birane Ndour dafa yóbbu ci yoon rakam wala ab cousin am foofee ca section de recherche maanaam kii di directeuru GFM bi daf ko porter plainte week-end gi nu génn journal bi nag la mu bind moo di kii di Birane la muy toppee cousin boobee moo di ay njuuj ci wàllum gestion bu nga xamante ni ñu ngi koy gérer plateforme digitale bu groupe Futur Media journal bi xamle wale tamit kii di Ndiaga di baay si Birane Ndour di rak ci Youssou Madjiguène Ndour na ni dañ koo déglu si mbir moomee waaye nag bu ñu sukkandikoo ci site bi di IGFM xibaar yi yéenekaay bi di laas bind démb ci altine ji dara du si dëgg naka la mbir mi demee dëgg-dëgg waa IGFM leeral nañ ko ba mu leer naññi journalu groupe Futur Media bi lam xamle moo di mbir mi mësul nekk ay njuuj njaaj bu jëm ci wàllum gestion bu plateforme GFM li am ba des mooy waa GFM liñ bëgg ba dem ci yoon moo di récupérer code yi nga xamante ni ancien gestionnaire u site bi maanaam ki yoroon plateforme groupe Futurs Médias yi yoroon na ko te mu démissionné weer yi nu génn deuxièmement ki nga xamante ni moo di njagandu di directeur u TFM kenn déggu ko ci mbir mi donc wax ni dañ ko entendre ci dossier bi loolee nekkul dëgg ba tey IGFM mu ngi xamle ni waa moo di retrouver waat seeni outil yi nga xamante ni moom la seen ancien gestionnaire bi yoroon ngir ñu mën a continuer waat seenub liggéey comme niñ ko tàmbalee ci année yi ñu génn ci support digitaux yi nga xamante ni groupe bi am na ko nii rek la mbir mi demee waaye amul benn yoon mbir mu jëm ci wàllum gestion nébuleuse jërë ngeen jëf